ñoom ni mu bind livre blanc ma bind livre rouge livre rouge boobu noonu. waaw moo nekk nii ma ko doon fàllu. lii mooy mhm. couverture livre rouge bi. Mhm. gis nga ni ma ko tutelee. Mhm. yow le petit visible lacry. mooy benn montagne boo xam ni mi ngi ci biir tuut rek mooy feeñ. la partie visible de l'iceberg. la partie visible l'iceberg. Mm -hmm. l'iceberg mooy la ab montagne bu mag la. bu mel ni voilà. l'iceberg loolu ñu wax naan moo daaneel xaw ma euh, bateau Titanic. voilà mooy <laughs> maanaam mooy lifa bi. Mhm. <laughs> gars yi gars yi baara daf ñoo bëgg té xel dé. non ki daf ñoo bëgg té xel parce que. baara man leen moom a jaaxal mooy yow sa sa couverture rek nga ñuy woon ba léegi gisuma la nga ubbi livre bi ah mais da nga ubbi ñu xool <laughs> non man mënuma man mënuma comprendre yow nga bind sa livre yow mënoo liir couverture bi waxuma la si biir livre bi de mais couverture bi kase yow mënoo ko liir quoi après yow yow man daal salaamaaleykum sama gars yi maa leen di siyaare di leen jox seen yéeguwaay di leen dalal seen seen YouTube di leen wax ngeen di abone di like vidéo yi di leen wax ne maa ngi ànd ak Serigne Siri Mokhtar Mbacke di setu Serigne Baara Mbacke di ñaankat boobu nga xam ne lépp lu jëm ci wàllu ngóor rek yàlla mooy na ko si taw feex bu baax a baax a baax a baax ku si am jafe-jafe da ngay daal di jël numéro boobu jokkoo ak Serigne Siri Mokhtar Mbacke yor na fas koo xam ne loolu képp moo ko tax a jóg numéro bàyyi noonu mais day ñaan tamit day listixaar sëñ Baara moom bind na livre am ñëw na taxaw assemblée national li mu si gën a jaaxal nag mooy eh, sëñ Baara dafa frappé fort nag waaw saa yi nag yéen yéen mënoo leen comprendre sëñ Baara yéen dama leen bëgg a fàttali benn affaire sëñ Baara Dolly mii élection député yi passé bi muy am dafa ñëw tafu ci ginnaaw président Ousmane Sonko président Ousmane Sonko dem Mbàkke ànd ak moom def campagne mu toog ci kaw oto ba ñu def seen campagne voilà quoi mu gañe ñëw nekk député bàyyi leen ci xel bu baax a baax bi loolu jàllee mu commencé bi Macky Sall attaqué président Ousmane Sonko commencé ko teg ay fitna mu commencé ko def ay yëf Cheikh Bara Dolly taxaw ca wet ga naan Sonko bi ma kiiwee ñëwul seet si ma bi ma sama nangam bi gaañoo jaalewuma moo tax ma pare ci moom affaire yooyu noonu commencé di tiire ci kawam naan moom mooy jiyee fitna nangam nangam loolu yëpp def na ko fi ah pour muy leer xam naa ne nag da ngeen gaaw fàtte quoi léegi nag loolu yëpp jeex na ñu dem élection mu ñëw war a ànd ak ki nga xam ne moom la fi Sonko teg mu wanaat ginnaaw Sonko foofu encore ba léegi demaat ànd ak Amadou Ba te Amadou Ba moom moom mii bind livre rouge bi lim ci wax yëpp ne looloo nekk ci livre bi mooy ay mag i Sall moom ak ñi mu àndal loolu la wax ne moo nekk ci livre bi léegi Macky Sall boobu tànn benn candidat ne mooy sama candidat yow nga dem ànd ak candidat wu Macky Sall boobu te nga xam ne ci nguuru Macky Sall la nekkoon li Macky doon def suba ba ngoon ñoo ko doon ànd nga dem ànd ak kooku ne moom ngay jàppale moom ngay fal <laughs> voilà yàlla woon la ne Touba amoo fa dara amoo fa majorité amoo fa dara Sonko mi nga àndaloon moo taxoon nga nekk lii wala lee ginnaaw yàlla affaire yi jeex na nga bëgg a ñëwaat tafuwaat ci kaw gaay yi lépp li nga xam ne moom mooy leen li leen di neex wala liñ bëgg a dégg nga di leen ko wax te patriote yi dafa am ñoo xam ne seen xol yi dafa rafet seen xel yi dafa gaaw fàtte voilà coûte que coûte ñu ngi la bëgg a fàtte ba commencé di dem di def ak yow ay vidéo gis naa si ñoo xam ne dem nañ def ak yow ay vidéo ñi commencé voilà ba ne ku fàtte li fi def yëpp quoi voilà léegi nag <laughs> affaire yaa affaire dof-dof lu gi lañ war a voilà nit du ñëw fi def lu ko neex après mu wëlbati ko ñëw nax ñu ngeen dem kerem, di vidéo di promouvoir voilà élection bu jeexaatee mu jaaraat fa mu jaaroon pour lan xam ngeen ne kii bu taxawee fa mu taxaw élection yii di ñëw du duggaat assemblée national parce que amul majorité bu ko mën a yóbbu foofu bari ci ay moroom nag bari na ci ñoo xam ne bii nii mooy seen dernier duñ fa gaaw duggaat kon wala kon ci yeneen jamono lay doon léegi nag ñu bëgg a ko ñëw tafu seen kaw di dof dof lu di jéem xool lu neex nguur gi ñu di ko wax naan ay président tasal assemblée beeg. ah livre rouge livre rouge bo xam yow kula la bindal livre livre mo bindoo ko moom parce que boko ko bindoon au moins di nga lire couverture bi mais sax couverture bi mënoo ko lire ba journaliste bi mo la ci don jappalé di la teg loxo pour nga dem lay ku lire li ci kaw nooy lire li ci bir ku la bindal <laughs> waaw yow ba nga xel mi ngay fooyee ni fi nga fi nga lal nak dafa fi nga wok dafa xassane parce que ñe dañu indi sen livre blanc yow nga ñew indi livre rouge xalaat bobu nak ak xel bobu nga indi mo doon lo xamne nak da nga laal fa da nga laal manam da nga wok fi nga xamne ne mooy da nga mus nak yow fo jëne japp la fi ngay nekk di comédie def yëfu xorom xorom gaay di la jappé dof kañ ni do dof bop nga yow bop nga cerveau nga li ngay def yëpp ci code nga koy tek japp nga ne nga mëna def pour am li nga bëgg mais patriote yi yewul leen baara dool da leen di nax dafa bëgg a dugaat assemblée nationale dafa bëgg amaat crédibilité te loolu c'est fini bàyyi leen yéen ñi ngeen koy def nag di ko dem di ko di dem këram di ko fa def di ko fa fekk di ko vidéo di ko defar ay synap ay affaires yooyu noonu di ko may promotion bàyyi leen loolu gis naa ñoo xam ne ñu ngi koy commencé defal promotion di këram di ko vidéo di ko interview di ko laaj muy wax bu dee ay journaliste sax garaawul mais ay patriotes yor seen téléphone dem këram di ko vidéo pour lan génn len ci li ngeen nek yoy ay caaxaan kep la waaw da len di nax de waaw da len di nax ti nax gu metti la leen nekkee boo leen nangoo mu nax le rek ay co yàlla baxna na. di len ma saw di len ñaanal yàlla ñu génn ci ak jàmm ak salam franchement parce que keur go xamantene ya nga ngi plus de 500 personnes. Mm. buñ ci déggé ben vague de licenciement ak ñu mel kenn duko souhaiter parce que kenn ko licencier emploi de moins la. benn père de famille la wala mère de famille boo xamante ne amaana ñàkk na liggéey war koo wëri jiwaat mhm. waaw donc loolu moom dañuy dañuy dañuy delluwaat di di di di massaw jafe-jafe nga kër googu koy dund mhm. waaye tamit pour man dafa war a yee képp koo xam ne da ngay investir wax ma ku nekk ci presse bi la gis nga investissement njàpp mhm. dafa am yoon dëgg la à un moment donné ñëpp dañ doon posé ay question groupe Futur Média lan moo ko téye mais da nga doon gis njàpp tey ji mu mel nii benn benn benn Barça wala benn Real quoi yow danaka presse bi kangam yëpp récupère nañ la ñu ngi ci groupe bi. té ñen ñi bo déggé seen salaire yow tu n'en reviens pas. Hmm, ils ont de très gros salaires. wa mais légui lolu tay ji lolu non lepp lepp lepp lepp lepp est-ce que boîte mën na ko tenir pendant des années. té malheureusement ñi am fa salaire yi nga ni euh, man je dis que lan lañu ñu apporté. parce que benn émission lañu am si semaine bi gën ci bëri ñaar. parce que tour lañuy fayé c'est des stars en fait. ils ont plus pris beaucoup de stars. lolu loolu ça pose problème. oui parce que pour man tay ji bu fekkee ne njaab dafa yor boîte am mu jël benn Moustapha waaye bu jëlee Moustapha dem beneen boîte jëlaat fa keneen jëlaat fa keneen après doo plombé sa bopp mm. léegi après nga def nii jéem a lijjanti fooy fayee def nii après nga xëy embauche nga ne damay dàq cinq personnes yaa dàq yaa ko njëkk provoqué mm. parce que amaana boo yemoon ci Moustapha ak Abdou Khadre ak keneen ak keneen ak keneen koo jël ñaar ñett di mën a tenir mm-hmm. di nga am say revenu nga nga nga gérer ko mooy problème bi jiitu mooy problème gestion personnel bi nga xamante ne pour man parce que amoon ben moment ñu ne dañuy déployer ñi ñi dem ci radio bi ñi def ñi nangam ak nangam mais pour man amono na ñu doon gérer sen personnel euh yi dina wàññeeku. Mhm. benen mbir bi ci amat moy coowal l'impôt bi. Mm. parce que man je pense que l'impôt bi bokk na tamit ci li sonal gis nga boo amee entreprise ci dëkk da ngay fay l'impôt njàpp. Mhm. nañ waxante dëkk. dëgg la boo nekkee ci entre nekk ci dëkk da ngay fay l'impôt lolu kenn mënul taxaw ni nit dafa nekk fi parce que ni non dama jege ni nii El Hadj Ndiaye mi ngi fi c'est un exemple. Mm. ku ko gënoon a jege Macky Sall dafa am. Mm. mais teewul dafa daan fay lempo en tout cas boog dégguñu ko si coowal lempo yi en tout cas dégguñu ko si dégguñu ko ci yenn mbir yeeg yooyu pour man loolu bokk na tamit leen poser problème parce que bu ñu leen redressé ñu ne bori presque 40 pour cent yéen a ko amee ça pose problème certains diront des milliards yoo xam ne war ngeen koo fay fu ngeen koy fayee fu ngeen koy fayee donc pour man loolu sa pose problème te beneen jafe-jafe la boo xamante ne actuellement kër gaa ngi ci dañ leen di ñaan yàlla ñu génn si ak jàmm ak salaam ah tfm yen digënté bi nga xamné moy digënté bi nga xamné mom la fi nguur gu bees di tok ak légui lan mo xew ci digënté bi lu waral ay daq ay ay ay ay ay ay ki num tuddu ay élément ngeen wañi seen élément yi ba ñenn ñi di démissioner et cetera et cetera lan moy problème bi lu xew ok ok ok ok ane comprendre quoi comprendre nañ bu baaxa baaxa baax lan mo nekkoon lan moo nekkoon seen secret parce que yéen yéen nekkoon euh, kii nu mu tuddati yéen a nekkoon euh, Real wala Barça wala Paris Saint-Germain yéen daal yéen a doon recruter joueurs yi gën a mag ci championnat yi quoi maanaam euh, journaliste yi star yi yéen yéen a doon recruter ñooñu léegi nag diggante bi lu fi xew ba waral tax ngeen am problème mu di fay ay salaire rek walla ngeen di dàq ay ay ay ay employé ah baax na <laughs> en tout cas jub jubal jubandi dal, voilà jub jubal jubandi fala yam nak waaw jub jubal jubandi kese waaw na ray jub wa salam <laughs> da nga jox hélas de waa waa ñëwal joxe hélas <laughs> ah déet wa taala ala sayyidina Cheikh Sidil Mukhtar